monsieur le ministre eh, dafa am lu ma waxoon bi paase li nga xamante ne mu ngi rapporté wu sur statut wu enseignant yi nga xamante ne ñoo nekk ci université yi te ñu nekk université privée laajoon naa ni que ni kañ ngay jël seen rang nga égaliser ko ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy enseignement yi nga xamante ne noo nekk ci université Cheikh Anta Diop. la réponse xëy na exegul mais dama doon wax ni dafa am loi 81 22 du 9 novembre 81 portant statut des enseignants universitaires il faut ñu revoir ko ça a été revu peut-être en 2012 mais bu fekkente ne dañu dem jamono di dox àdduna di dox. il faut ñu dem créer des mécanismes d'égalité de chance de tous les professeurs parce que je pense que tous les professeurs comme li ñuy wax rek tous les professeurs se vale parce que nous tous on a été sous les tutelles de quelques-uns d'eux te lu mu bon bon suñu xam-xam yi ñoom ñoo ko yore un professeur ne doit pas avoir l'attitude de quelqu'un qui vend du tchaff et généralement c'est dû à leur salaire parfois yoo xamante ni dañ ko war revoir ak naka lañ leen di tegee dans les conditions nécessaires je pense que là c'est la nécessité de dire au ministre du des finances et du budget de revoir la partition euh, peut-être allouée aux professeurs euh, des enseignants des universités pour gën leen jàppale gën leen yëkkati dégg naa sànq ñu naan euh, ñu waxaat ko parce que je pense que même dafa doon na ci corriger euh, c'était lieu de dire que man maa waxoon nous trouvons parfois des problème pour acheter des tickets à nos euh, étudiants yi nga xamante ne ñoom lañ dëkkal parce que ñun nous habitons la banlieue wax naa ko Pikine boo dee xool la crème de la crème de l'université Cheikh Anta Diop habite Pikine nous trouvons beaucoup de difficultés pour peut-être rejoindre Cheikh Anta Diop amul problème mais def ngeen fa ENO ENO bi baax na mais yokkal leen leen matériel ba nga xamante ne xale yi dootuñu nekk sonn sax di tal di dem di defe ji feneen yeneen cours yi mais ngeen dimbale leen aussi ba nga xamante ne suñu soxlaa ñun ñi nga xamante ne ñoo fa nekk dans le département nekk tamit si opposition bi ay ticket ñu bañ a làqatu ci benn collègue député bu bokk si pouvoir bi pour ñu jëndal ñu parce que man ça m'est arrivé mille et une fois ici à l'Assemblée de donner mon argent à une collègue elle n'est plus là pour mu jëndal ma ay ticket sinon du ma woon am te dama koy maye rek te dafa jar na sax monsieur ministre ñu dugal ci budget bi cent lay ticket bi di jar ñu may ko élève day sawaral élève bi cent francs sawaral nga gën ci mën a lekk foofu gën ci nekk ci jàmm te doo sonn may leen leen ko cent franc rek la euh, di wax euh, obtention bourse yi tamit ngeen xalaat ci suñu doom yi nga xamante ñoo nekk dans le de Pikine di ko ubbi mais aussi dama si doon wax toujours ça fait cinq ans ma di si wax l'obtention des bourses pour les Sénégalais de la diaspora euh, monsieur le ministre loolu waxoon naa ko dinaa si delluwaat di wax ni inscription yi vraiment euh, nañ ko gën a ubbi pour nit ñi mën cee jot somme bi nga xamante ne tamit mooy li xamante ne mooy bourse scolaire étudiants yi nañ ko yokk vingt mille francs trente mille francs yoru kenn am na ñoo xamante ne tey bu ñu toogee fii nekk ay cadre universitaire euh, loolu moo leen ko may parce que dañoo xoslu ba egsi ba fii donc ñii mérité nañ université Cheikh Anta Diop ñu yokkal xale seen bus scolaire di profité ci occasion bi di nuyu sama doom bi toog sa ginnaaw monsieur Cheikhouna Gueye je vous remercie